askan wi avons rafetlu nañu li mu def ndax ñuy joxe lu askan soxla la kit boo ci gis am na ceeb pat sucre loolu gis ngeen askan ni ñu dans la discipline ci distanciation physique bi ñuy ñëw it dañoo raxas suñu loxo ak ñun gis ngeen masque loolu nak dañuy gëna ñaax askan wi pour que ñu japp ci mbir momu ndax fièvre bi mi ngi fi. li gën moy ñu boole suñu doole ñun ñëpp parce que waxtaan nañ ci ba paré ñent maire yi nekk ci gox bi muy maire Bambilor di maire kam di maire jaxay di maire Tivaouane pel ñag waxtaan nañu ba teunk amna luñu boole ci walu ciep ci walu sucre ak yenen xet yo xamni dañuy ñëw jappalé ko président Macky Sall parce que li ñuy joxe xëy na du daj ñëpp. mais ñun buñ ci indiwaatee li nga xamante ni ci suñu budget lañ ko jële dugal ko ci dina gën a tax mu gën a law ba ci askan wi. ministre bi yor développement territorial équité territoriale dafa bindoon benn bataaxal boo xam ne bii terme de référence lañ koy wax naanaam nan lañ koy saytoo ba mbir mi àgg ci fa war a àgg leneen loolu wàcc na ci gouverneur wàcc ci préfet wàcc ci sous préfet ñun ñu wàcce kayit gi ci maire yi ñoom aussi ñu wàccee ko ci chef de wala ci délégué de quartier yi waroon a toog toog nañ. dans un premier temps xool ñan lañ jëlone ci RNI bi te ñooñu ma ngi wax né euh cent ñaari téeméer la ak juroom ñaar fukk juroom juróom nit yo xamné dem nañu xool leen saytu leen mais kuñ ci gisul aussi fexé nañ ñu jëlat yeneen nit ñoo xamné ne nañ ko ñu duggal leen ci euh, RNI bi loolu lepp boko jëlé muy 700 773 muy juroom juroom ñaari téeméer ak juroom ñaar fukk ak ak ñet yi nit yo xamné ne ñoom ñoo bok RNI ak extension lol nak bo fi may taxaw ni di wax ni mën nako wax parce que yéen ñu nga fa ken dingatul sangal Sangalkam aussi ken dingatul japp nañ ne liggey bi niñ ko defé rafet na. lii ma gis nak wax deug yalla newuma musuma ko fe gis de musu fe am waye man musuma ko tek beut te grâce à Macky Sall. ndax tay man ma ngi ni amon na problème mak samay morom mais tay fo wacce ñaari saku ciep 10 litres pat baa ngi waaye loolu boo ko wàccee sa kër nag la ca des da nga ci mën dara ci korité bi kon Macky Sall gàcce ngaalaama